ni ngeen ko ni xamee mbokk yi ñu ngi fii ci Ngor dikkaat rek ci li nga xamante ni moom moo fi xew muy ab soxna bi nga xamante ni dañu kaa fekk mu ñàkk bakkanam ci biir ab appartement euh, bu immeuble bi nga xamante ni euh, moom ngeen jàkkaar lool jamono ji gis ngeen itam image yi nga xamante ni euh, ñu ngeen koy won mu jëm ci rek ci ni ñu dajee bunt bi nga xamante ni foofu la nekkoon au mais aussi gis nañu ne bi ñu dikkaatee ci léegi bi nekk na kër gi nga xamante ne si kër gu wéet la ci dëkkuwaay nit mën naa yëg premier première ba troisième étage euh, te du jànkonteeg du rencontre kenn ki nga xamante ne ni euh, moom la fay teg bët wala moom lay moom la essentiel ginnaaw sax kër gi quartier bi euh, niñ ko xamee ci wàllu ngor nekk na quartier bi nga xamante ni bu wéet la itam jëm rek ci ci ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ñu bëri ci ñi fi xëy di fi yeewoo nag nekk ñu fi dëkk ñenn dañ fi logé bu ñu xëy dem liggéeyi ña ca des dañ fi ñëw rek ngir daan seen doole bu ñu noppee après ñu dem ñu dem seen yoon wante nag ci ay témoignage ci ay xibaar euh, jot nañu ki nga xamante ni moom moo faatu mu ngi tudd Ndeye Codou Ndeye Codou nag moom ci diwaanu Pout la fekk baax jamono ji nag euh, ki nga xamante li nga xamante ni moom moo di corps bi euh, mu ngi ci morgue ngir rek ñu def ab autopsie ngir rek gën a xamle ak askan wi lan moo waral dëggi dëggi faatoom googee nde nag am na ci xibaar itam jot yi nga xamante ne nee nañu caméra de surveillance nga xamante ne jamono ji ndar képp na kër gi jot naa wone benn waay bi nga xamante ni dafay amee ab jàllaaba bu weex bi nga xamante ni jamono ji nag moom la ñuy wër Eh, ngir rek eh, jëm ka tek loxo jëm ci enquête bi nga xamantene ni eh, mom mo jëm ci walu ci walu ci walu ci walu déterminer un peu kan mom moy kan mom mo nek ci ginnaw pat gogé wala itam lan mo nek ci ginnaw pat gogé ak la ci ti am procureur de la république jotna jël dossier bi tek ko ci kaw table bi ñi nga xamantene ne waa police scientifique également jot nañu saisir dossier bi jamono ci am nañu ben suspect yi nga xamantene mom lañuy wër ngir daal di ngir daal tek loxo ngir rek lijeenti li nga xamantene mom modi ci ci walu paat googee li ci mënti am rek mooy mbokk yi ñu dugg ci appartement bi ñu xool itam euh, naka la bindoo wante itam ñu xool itam quartier bi nga xamante ne fa lañ nekk fii di Ngor euh, naka la bindoo ak itam dëkkandoo yi ñenn ñi nga xamante ni jot nañu yëkkati seen kàddu daal di kaa ci paat lan nga xamoon si moom doon jàpp si moom. non si dara de mais day ñëw rek jënd fii génn waaw loolu rek. amul fi ñëw di ko seet si wala yu mel noonu. non non. moom moo rek moom rek mooy dugg fii jënd. moom kese moo dëkkoon. waaw waaw. léegi la mooy la euh, hmm, jour boobu rek vingt deux heures ñëw na fi jënd ay vite fait. vite fait la jëndoon. garabu yoo. waaw garabu yoo waaw. bi garabu yoo la mujjee jënd fii waaw génn. miinante woon ngeen un peu. non non lu ma waxaw moom de su jëndee rek dem na. amuloo ñu fi doon ñëw di ko seet parfois wala ay xaritam wala ay mbokkam. non non mosul am de. effectivement en fait je l'ai apprécié comme tout le monde parce que moi maintenant le meurtre je, je considère le meurtre comme un naturel maintenant. Oui, parce que vous savez, comme on ne peut pas éviter les <laughs> inondations, les, brousses et tant de choses, de même, on ne pourra jamais éviter les meurtres. En fait, donc je ne peux pas le dire parce que, en fait, la scène était déroulée en fait, vers 4 h du matin. Vous voyez Donc, personne ne peut témoigner. Personne, personne ne peut témoigner réellement comment en fait la chose était passée. Voilà. Confusez-moi en fait, euh, voilà, le découvert, moi aussi, plus tard. dama ñëw rek dama damay taxaw na de seen gendarme waaw ah, koy après dañ tëj bu lii bi dafa tëj. waaw ah, koy. après di nga laajte. ah di nga laajte ñu ne la. ma ma fekk fële benn daam. Mhm. laaj ko mu ne ma xaw ma lan moo mhm. après bi ñuy waxee ne daam ku fi ku ku ñu ci rey naka nga ko jàngate non ñoom ñu surveiller fii nii. waaw leen waxtaan dara. Mm, non non du rek bu na. mais ah, ah, problème de. Hmm? Non, non, un problème. Alors, vous, habitez ici, est-ce que vous connaissiez la dame Non, non, non, Moi, je ne m'intéresse pas à, femme, franchement. Hmm. Mais c'est qu'en fait, on est en train de vivre un fléau maintenant. Ce qui se passe comme ça, bon, en fait, c'est une réalité. C'est une généralité. Mais qu'est-ce qui l'origine Qu'est-ce qui est à l'origine de ça C'est la question à mon avis, qu'on doit chercher hein. C'est une question sociétale aussi. Voilà. Et puis, économique surtout. Voilà. Économique comment Économique, parce que, comme vous savez, en fait, la victime, paraît-il, est une poste Vous voyez Donc, qu'est-ce qui les conduit à, en fait, ces gens de Parti. Hein? À mon avis, en fait, ça doit être une cause économique, bien sûr. Voilà. Il y a de l'insécurité ici qu'on peut noter Bof, l'insécurité est notée partout. Est Encore une fois, euh, en fait, euh, les meurtres, euh, on peut les attendre n'importe où. soir. nous a qualifiés. Euh, Ce n'est pas une chose nouvelle. Un mari a femme. Une femme a trouvé son mari. Vous voyez C'est en fait, euh, euh, on peut attendre le meurtre partout. Ouais. Quelle, euh, quelle, solution donc préconisez préconise Mais donc seulement qu'on doit s'asseoir sur une table et voir comment essayer de pallier à ce genre de situation. Parce que qu'est-ce qui conduit à cela souvent. Hein? Voilà.